السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكيلي بكتالي بي بكيلي بي ما يلين بجنب بلان سمت بلان قرم koy coow muy weer bi muy tuuma ju ñu yëkkati teg ko ci deru gor deru jullit moo ko waral koo xam nag yàlla laa dénk doole jox la pouvoir bépp di la sàmmloo nga war a sàmm ba war a jofal war a xontu jur gi ñu bañ a xiif bañ mar waaye nga yeewu leen joxoo lu leen leen lekk joxoo leen luñ naan teg leen ci condition yu bon ko def ku ne day yaakaar yi dina la jikk te yàlla teral la ba noppi nga bëgg a toroxal doomu aadama yi ku yàpp ni ku jàpp ni da nga mën ngaa daan nit adduna daan ko àllaaxira yaa ngi nax sa bopp suur réew mi nag man am naa ci jàqare am naa ci tiitaange am naa ci tam ak jaaxle ndax réew moo xam quatre-vingt-quinze pour cent yi ay jullit lañu waaye am kenn ku leen jiite nekk ca bopp ba mënoo wax jullit la mënoo wax lan la te njiit dañ koy tànn waaye njiit loo xam ne dafa soxot ñàkk njariñ ka khidine ko tan wuro tan koko bu la ko yàlla natoo nag danga ko muñ te day mel ne Sénégal yàlla noonu na toll loolu ndax soxat weesuut ne cim réew jiite ko ñuy wax ay opérateur économique wala ñu leen di wax ay homme d'affaires daan naane tëjoo ko nga war leen ko defal moo di forage nga branché ay tuyaux fu ne ndox ma jote fa ñu naan buñ bëggee togg togg buñ bëggee sangu sangu defoo ko waaye nga bëgg a sakk teen boobee de mën naa ñàkk te loolu weesuwut mooy tëj seeni compte ba mënatu ñu am dara nga nangu lépp téye ku ci amoon. te jënd ko nga nangu ko wala nga xaaj ko te doo ko dugal foo xam ne njëriñu réew mi la sa soxlay bopp nga koy dugal wala nga jox ko say bokk loolu iñaan féetewu ko kaw moo tax opérateur ko yi sonn nañ homme d'affaires yi sonn nañ iñaan weesuwul itam Sénégal yi nga xam ne ñoo liggéey ba am seen paas dem bitim réew di fa liggéey di yëngu te loo am doo ko mën a dugal ci réew mi wala nga ne ci réew mi war am xaalis bu la jógee bitim réew boo xam ni pour pour lewal doom ma lay doon nga bu koo jàllale si te doo ko man a doo ko mën a dugal doo ko doo ci mën a jot ab million sax boo ko dugalee day laaj foo ko dugal rek foo ko jëlee foo ko nangam nangam bu dee quatre millions wala cinq millions waxi noppi ñaan féetewu ko kaw ñàkk ñëw itam féetewu kaw bañ diine gi nag moom kenn na tablewu ko ndax ñaari at yépp ku féppiwul sa sa jumaa daa tëj daara alxuraan yi boole ci di jëng sëñ daara yi jàngale di leen tëj ci kaso bi ay juróomi at ay ñetti at ay fukki at leen tere yalwaan te dimbale woo leen féete loolu ki ñaan féete woo kaw njiit nag su fekkee dafa dëng jàng ay àttekatam gën koo dëng gën koo jàng moomu réew dana yéex a jag ta kat képp koo xam da ngay àtte te àtte woo ci alxuraan moom na kooka ab kàccoor la ab yëfar la ab naafeq la te kat ëllëg suñ borom dana àtte te àtte suñ borom nag moo gën a jub moo gën a maandu ku àtte fii ak ndëng àtte fii ak ay caaxaan na xam ne suñ borom dana la àtte ëllëg te boobaa da nga am gàcc da nga am kersa da nga rus. kon rew mi ñi ngi jafonteeg ay ñi ngi ñu ngi ay coono te kenn tegu leen ko lool njiitu rew mi fi nek ba muy bëgg rew mi day dawul jog tuba ta fa da rap rap tok ci suuf di su jot ragal ko fa lol mako ko Abdoulaye Wade bëggee tëj fii la ñëw ci Cheikh mohammed Lamine Bara bo mo fi nek di jooy daanaka alañ baara dox digga ma gàcce googee ba tey yeesu ko waaye tey jii de la mu ragaloon mi ngi koy def gor yi di toroxal di leen duma tak kilifa ko ko ñaan mu làkk te ba mu de Tuubaa gi ñëw ci kilifa yi ñu dox digga ma gàcce waaye nag day mel ni moom kilifa ko ko ñaan mu gàccal la ba ñëpp kenn sawratu koo ñaan kon njiit li mel noonu ku am yàlla natt na la waaye nag yàlla du tëj bunt tëj fenêtre wàcc bi rido déedéet leer na seen complété yi ndax ñoo yor lépp bëggoon a toroxal Sonko waaye nag sun borom su suturaal ab jaam lott na ci toroxal la ndax tuuma ji ñu teg sonko di dara wéru ci te lépp leer na bëgg ko gàccal tam moo tax pexe yi doon def tey jii yëpp ñu def ko waaye yàlla leer na lépp ku am sañ-sañ nag am doole jàpp ne yaay buur di bu mi ba loo neex nga def bisimilah yàlla gëmul nelawul te moo fi sax gàcce nag baadool lu ko jub mukk mukk mukk mukk kuy bëgg a dee ci xare lu mu jiit xeb ko damaa yaakaar nag kuy bëgg jeexal daa war rafetal waaye waroo ñaawal kii fi nekk day rafetul dara rafetul dara comme réew dañ cee nekk di ay julit di ay sénégalais kon luy defar luñ ci war nañ ko wax lu yàq luñ ci war nañ koo wax ndax noo ko waxoon ci xuddaamul xadim ni danaa wax ashadu an laa ilaha illa allah di ay julit kon lu ñuy luy defar ci diine war nañ ko wax waaye luñ ci xam lu ko yàq war nañ ko def wax aslamtu nafsi itam doon ay taalibe kon do yoon wi lu ci yàq buñ ko xamee war nañ ko wax lu ñuy defar suñ ko xamee war dëkk ci réew nag am dante Sénégal di si waxee kon nag réew mi ci war lu ci defar buñ ko xamee war nañ ko waxee lu ci yàq buñ ko xamee war nañ koo wax loo tax ñu yëkkati suñu kàddu ci suñu turu bopp dina xam xew tey di ko ñaa di ko ñaawlu di ko metti di ko ànd ak nag ñi ñu bokkal pas-pas ñëpp ñi ñu bokkal bëgg réew mi ñi ñu bokkal dëkk ci réew mi li yàlla gàcce gu réy ci réew mi itam gàcce gu réy ci jullit yi ndax jullit jullit ay bokkam boo gisee ñu yëkk suñu kàddu nag lii ñu wax rek moo tax soo ko nag sunu dëkkandoo noo bokk dëkk siti kër góor gi ba noppi ñu xam ko ci ak ak gëm dara di jullit gëm dina di ko pratiquer bu wér a comme ñoo bokk nag ñoom jàngale ñu jàngale ay tubaab bokk nekk ci réew mi mu gën a leen lim gëm diine te gëmuñu ko di ko pratiquer moo tax suñ ko bëggee daane dañ koy tuumaal ci jigéen wala leen ngir gàccal ko waaye fii googu yàlla raxal na ko. li ñu ko bëgg a def nag daan doole daan jaay ko doole dong la te doole nag moom kenn dong kam mu yàlla doole juy sax yàlla joxe nguur moo koy xañ kon Macky ak ñi nga àndal xam ne da ngeen da ngeen fi jóg jóge benn nguuru yàlla rek sax benn nga toog fi li nga war a toog mu jeex nga jóge fi wa illaa nga def gaaf ñu jëyee la fi te lii nag gaaf la boo xam ne soo ci dellu soo gannaaw mën naa dem ba réew mi bañ la gedd la ba max la puus la gëlleef ci farfos te loolu nag kenn yéenewu la ko soo sañoon da nga fi nekkee na fi Abdoulaye Wade nekkoon am yërmaande nangu kilifteef nangu ndigal loolu taal bi waaye yow bis bañ la falee te dee bëggoo pare nga waxoon ne seen nga ni nga waxoon ne kilifa yi dinañ ay citoyen seen pale ordinaire lañ loolu nag moo nekk sa xol ba tey jii yaa ngi leen di jéem a gàccal yaa ngi leen di jéem a toroxal waaye ak ay jafe ak ay jafe ndax ñoom kat liñ am mayoo leen ko te mënoo leen ko xaj diine leen ko may suñ borom a leen ko jox jaarale ko ci diine kon diine leen teral islaama leen teral yéen nag àdduna moo la teral te àdduna comme teral ku ne bis la ñëw mu toroxal la maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah